وهو الذي من أدبر أنه وما تدبر في عسى رب الورى أدعوك أعوذ بالله بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يشوف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصيب السوء إلا الله bisimillahi ma saa allah wa ma bikum min ni'matin fa min allah bisimillahi ma saa allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu bokk jullit yépp di leen ñaanal jàmmi suñ borom ak yërmandeem ak barkeem ci niñ ko nuyoo ci niw lislaam bu jotale bii di jiital nuyoo bi xalifatul am li taifatul muridiya Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye di nuyu mboolem tarixa yi nekk ci Sénégal yépp di ko dal seen bopp njiit la te mooy xalifa généraux yi ak képp ku am ci islam rek ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal suñ borom yeggale sa mébét ak sa yéene ci lislaam noonu lañu nuyoo kilifa aada yi nga xam ñoo nekk ci réew yépp dale ko ci njiitum réew mi ba ki ci gën a ndaw leen nombal tànk bàyyiwul kenn di ñaan suñ borom sàmmal nu suñuy jikko yu rafet ba ndaw ñi ak mag ñëpp maase yor jikko yu tedd boo ko defee réew mën a dem ca kanam a kanam a kanam di nuyu waa ëttu Nasrou Média TV soppay Sëriñ Assane yëpp fu ci waaye mën nekk rek ci gox yi fasantikoo yi ci réew meem bitim réew bàyyiwul kenn rawatina ñi nga xamni ñi ngi participer bari bari ci groupe bi di joxal seen cadeau ak seen question ak seen i ak yépp ñi ngi leen sant bu baaxa baaxa baax ta di leen gërëm bu baaxa baaxa baax baax bu ko defee rek ñu ñëw ci seen émission waxtaan diine fii ci nasru min allah ànd ko ak sërif asan borom nasru di ñaan suñ borom guddal aw fanam te wéral ay kërëm te gën a dëgëral taxawaayam bu baaxa baaxa baax baax bu ko defee rek ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu ñëw ci waxtaan wi tey thème bi di doon basmala maanaam bismillahi rahmaani rahim incha allah rabbi ci lañuy waxtaan ak sëñ bi tey bu ko defee mu nuyoo ñu ñëw ci question yi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bu nu sante yàlla suñu borom niñ ko baaxoo sant ci alhamdulilahi rabil alamin ak alhamdulilahi alwahidul ahad alhamdulilahi ala kulli haal alhamdulillah haqa hamdihi suma salatu wassalam ala sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ñu ngi wat del ci wat ci daaree nasrullah sen waxtanu diine di siyaar sunu xar yi nek ci aduna bi nga xamni ñu ngi top ñom ñep le nasru media tv di ci yëg njariñ yu bari dañu woo subaak ngoon ala kulli xaal di ndokkeel di ci participer it niñ ko mane yàlla na leen yàlla yokk xar yi ne ci àdduna bi yëpp depuis Amérique liñ ko baaxoo waxe ñu siyaar leen ñoom soxna ma rek ña fa nekk ñëpp ñoom soxna mboose ñoom ña fa nekk ñëpp ak 52 continents yi dem ba Paris union bi tépp ñu siyaar leen ñoom tam xarit yañ fa nekkal bàyyiwuñu kenn def arabi saudi ñu nit wala dafa nekk siyaar rasul alayhi salaatu wasalaam julli ca jëm jàkkaam ja dem ca kaaba ga def safaak def tafa tawaf bi julli maqam ibrahim naan sam-sam def safaak marwa dem Muna dem Arafa Musdalifa dellusiwaat sànni jamra ba noppi def tawaful wida siyaar ñëpp ñu nekk Afrique tey top sen bi ba ci ñoom Ousseynou mbay ñom ñoñu depuis Brésil Argentine Russie Suisse Senef ken desu goor jigen mbaga ndaw boy setlu semaine bi passé ndeysaan da ngay yek ñom ñepp ni ñuy duggé ci biir nasu Média TV yàlla ni yàlla defal leen jàmm su su ndariñ ci nek ñu diko ko nak bu baax li am solo moy joxe mbir nga yég ni appliqué nañ ko à 100 cent nit ñu bëgg yàlla suñ borom lañu ñu bëgg ismail axsam lañu siyaar kilifa diine yi fi nekk ni nga ko waxee ak kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn di ñaanal ñëpp tawfeex ak sutura di la siyaare bu baax di la dalal ni ñu dalale xëy na jamono yi paas yëpp yéen génne ci seen bi maa ngi woon ci yeneen yitte ndax daari alxuraan yi waaye di nuyu suñ caméraman yi fi ne di len ñaan yalla defal len tawfiq ak sutura seen liggéey gëna ag cheikhul khadim bismillah ñu ñew ci penc mi jërëjëf sëriñ bi di baalu ñëpp ak nak gindi yi ñu weesu mhm. tay baalu ñëpp ñaan yalla bo ñu jël mhm. na bëggu ñu def sax émission ci tabaski bi ak sëriñ bi mhm. ci lan moy maana tabaski ak njëriñ yi ci nekk yëpp ak secret yi ci nekk xarma yëpp waye bo xawoon a xat ak fiñu ñewon ci ay yitte waaye dañ koy def benn yoon bi insha allah rabbi boo defee sëriñ bi ñuy jublu ci waxtan bi rek manam mhm. lan moy basmala sëriñ bismillahirrahmanirrahim mhm. moy lan mhm. ba nopi bëggoon nañu xam euh ndax mom mm, ci fatiha la bok wala bokul ci fatiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi roko ko fekk wala ñu na fi du jitu yeen sallallahu alayhi wasallam wala nga ñew ci jëriñ dal bëgg nañu barakallah barakallah da ngay laaj rek ndax ci alxuraan la bok waaw ci benn laajte walla nga ni sax déet lu tax waaw mooy alxuraan xam nga ni téeméeri sooraat la ak fukk ak ñeent mhm. am ñu ko def téeméeri sooraat ak fukk ak ñett parce que baraatu dañ wax ni mok sar wi ko jiitu ñoo bok benn be mm-hmm. moo tax amul basmala mm-hmm. bu dee non la 113 mm-hmm. la di ahad bu ñu multiplier fukki yon bu dee fukk ak ñeent la mo japp sar yi wahab bu ñu multiplier fukki yon du ci ne man na ne téeméeri sar ak fuk ak ñent yi nek ci alcorane benn ko ci amut muy soratu tawba kon waaw ci alcorane la bok ndax borom bi moy wax ni bu len jëf dara te ubbi ko wu len ko loolu la yalla ci alxuraan bu len lek wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa kay wala ngeen di naan wala ngeen di sol mbubb wala ngeen di dugg ci néeg wala ngeen warti ci raba même ngeen di nelaw te waxo bismillah rahmaan rahim jëmbat garab booy sanc société booy ibbi sa bureau tout saa booy sol sa mbubb waxal bismillahi rahmaani rahim jàmm fekk la ca jàmm jëkk mujj bu fekkente ne bul def dara te waxoo ko kon moo tax alxuraan saar yëpp ubbi ko waaye fi la ko alxuraan fekk ci wàcc mi bi muy ñëw ci kaw suuf mm. donte ñoo bokk fuñ ñu nekkoon ci kaw xam nga innahu la quraanun karim fii kitaabin maknuun day gudd waaye dañuy def benn muxaddima rek ndax dañoo bëgg ñëw ci njëriñ bi suñu borom foobee alquraanul karim te denc ko baytul xisaab boo xam ne wàcc ko bi mu bëggee mu wàcc lañ ko déplacé moom alquraanul karim wa innahu la kitaabun jooju alquraan di wax waaw kay te wax ni bu mu ko wax lawul mahfuus a tax yàlla di wax boobu foofu la nekkoon bu njëkk ba lawul mahfuus nag ñun dañ ko tudde alwa waye bu dee ci nitu borom haqiqa yi da ngay wut ben kaye ngay wax rek bu am ñetti téeméeri pass ak fukki pass ak ñett 313 pass ndax bu alwa ñaari wet lay am bo bindi fess nga bindi ki te lawul mahfuus ëpp na loolu kon ñetti téeméeri wet la ak fukk ak ñett bu suñ borom di wax nii yam ullahu ma yasa wa yusabbit yenn saa yi am événement bu xew ba ñëpp yëg ni nangam day xew nitu yàlla ñaan wala nga sàkk sarax mbaa nga tuub yam ullahu ma yasa yàlla effacé loola nga nga génn ca mooy ko wopp wopp soxna ñëpp yaakaar nday dee suñ borom ba mu xëy xëy xëy wéral ko yamuma la yamulax ma ay saa ci la bokk mu xiin bañ jàpp day taw suñ borom naax saayal ko yamulax ma ay saa ci la bokk tooñ yàlla ba war a dem sawara nga tuubal ko mu jéggal ci la yamulax ma ay saa ci la bokk maanaam jaar ci barab ñu tibb nappe la ngay lijjanti ba génn ca ci yamulax ma ay saa ci la bokk ak yu jeex yoo xam ne saa yu leen ne këpp daal nga def effort suñ borom ne am nga sens te de la sens génne la ca loola. waaye bu xasee egg wayu sabit nag mooy lu xam ne mënatu la ñàkk for force day am. mooy ànd fa umul kay dafa umul kitaab loolu mooy loo xam ni ñetti téeméeri paas ya ak fukk ak ñett. ba ca féete kaw. nga xam ne ca la ñuy dindee. di bind ci ci des. suñ ko ca xasee bind moom jeex na. waaye lu gis ci yeneen yi ci des fekk ak gunja. mën koo bind ba pare gome ko. effacé ko yàlla génne ci kooka mm-hmm. loolu moo tax suñu borom wax ni may naa leen lu bàkkaar réeré ngeen tuub parce que nekkagul yu sabbit mm-hmm. yam fu mën wessu weesagu ci ñu far ko mën ko ta waye so soo lankee lank lank gis nga bokk na ci wayu sabit ji moy di togn yalla di togn yalla di togn yalla lank bañu tup ba wop wop ndé ba nga xam dara desul faatu nga ne damay tuub déedéet mën a toojaa génn kay mo ko mo ko loolu la yalla wax ci alxuraan né nak nga xam dara lu ci lu faatu mm-hmm. wuur na ko duuti jóg mënatu naan kaasub soow mm-hmm. docteur yi xool nañ ko ba ne kii daal dañ koy appal yoratu mm-hmm. sax ñu ko biir ordonnance nga ni yalla ma ngi tup sa bakari ma don def déedéet wala ay sëriñ si na taw ba mënatu la nekk kooku mënatu la génn ci loolu moo doon feraw na diggante bi yontu yàlla Moussa kere ci seen géej gi ca baaru xalsu bi mu demee ba géej gi xoppi xar ba mu dugg ca ma ña ëppoon ci ñam àndal faatu ba mu commencé tëmbu mu tàmbali Moussa jéggal ma duut moo ko defati maa ngi lay ñaan boo ci génnee duut amati déet yàlla ne yastaxfoona mina eh, mina naas waaye wala yastaxfoona mina Allah mm-hmm. ñii mën nga leen a nax mm-hmm. waaye man mënoo maa nax ba bi ngay ñëw fii li ne saf xol tuub nekku ci da ngaa dem ba jekkati rek mm-hmm. moo tax faatu rek nga mën a def mm-hmm. loolu mooy wayu sabit mm-hmm. waaye yem laa may sa yooyu nga xam ne dañ koy effacé mën naa nekk saa yoo duggee ci basmala yàlla effacé ko insha allah moo tax da ngay dégg depuis yont yàlla Suleymaan ca basmala digganteem ak la reine de sabaa ñuy wax Balxiis. leetaram ba mu koy wax pour mu ñëw dugg ci diineem diine lislaam dafa wax ni innahu leetar bii ma lay bind min Suleymaan wa innahu na nanga xam leetar bu agsee lim lay doyee mooy bismillah nga ñëw dugg ci diine ci looy defati nga nga ci yàlla xam nga kooku loolu la ino ino min Suleymaan bismillahi rahmaani rahim kon kooku indi na complet yonte yàlla Suleymaan jiiroo na fi yonte yàlla ay milliards at soo demee ca yonti yàlla Nuux ak gaal ga ba problème ba amee lu gudd la dañ ko li histoire boppam ba suñ moom andi sanction mooy gaa yi lànk rek ba mu bind euh, pelentem ba ne yàlla li ma xam mooy junni at yu manque juróom fukki at def naa ko ci kaw suuf di wax jaam ñi ñu ànd ak yow jaamu lañ lànk nañu faalewul ma su ma leen waaree ñu fab seen baaraam mi sol si seen nopp ya dafa bëgg légui ci kaw suuf bu fi bayati kenn la tajal alla ardi min al kafirin dayara mhm. ne ñepp faatu nek intazafum waaw wala illa fajran ka kenn dut la top mhm. sëñ borom sax ne ko tey ngaa seet li nga xam ne ko dal fi ne mom dama doyal nag ci yëf dama bëgg leel laal li bagas ñen fukki militant kep la am mhm. lo bëgg mu ne ko nga ray ñepp sëñ borom ne ko kon bi bisoon defal gal lu gudd la mu bay defal gal defal ndoxam wax nañu gal ga sax dawna 6 mois ba taxaw ci dekk bu ñu wax juuti waaye bi ñu eggee foofu keroog lan la wax da ko wax ne gaal gi nag amuti frein yooyu jógi amul walaa booy jàpp amul caabi jooy cuq pour mu takk képp ku gëm yàlla tey dugg ci gaal gi na wax bismillah gis ko <laughs> waaw nga xam ne bu ne saa yi gëm yàlla maanaam dugal nga ne bismillah dugal mu ne ba mu am 40 baatu bi moom mi nga xam ne mooy suufóor bi mooy yonti yàlla noo ta a dawal bi mu ne tong fi muy toog bisimilah rek la wax téye ay loxoom gaal gi def mu ba mu war a dallu bisimilah mu jaraxa gaal gi taxaw même boo gi ci virage bisimilah lay wax rek gaal gi wiire su bëggee tàlli bisimilah boo gee ci descente bisimilah soo gee ci uh, uh, uh, awooxur bisimilah moom daal bisimilah mooy jubbante gaal gi mooy jubal gaal gi mooy dawal gaal gi mooy freiné gaal gi bisimilahi mujraha gaal gi daw wa mursaha gaal gi taxaw lu tax inna rabbi la xafurun rahim xoolal kon bisimilahi rahim rek moo am foofu amul rahman boobu alxuraan wàcc gut yonte yàlla noohin ak léegi yonte yàlla noo doomu yonte yàlla siix sax après Adama c'est ça après c'est ça non moo tax ñu wax aadama bu njëkk ak mu mujj moom moom mooy aadama mu mujj ndax li tax mooy aadama bi fi ñëw bu njëkk dara amagu fi li mu fi bàyyi woon ku si néew noohin ñaan na yàlla ñëpp faatu ba dara desatu fi yàlla sosaat jaam yi ci moom noohin moom mooy aadama mujj waaye kon bisimilahi mujraha wa mursa inna rabbi la xafuru rahim bisimilahi rahim rek moo am foofu gis nga ko da ngay gis inna allah bi la raxoofun rahim gis ko yooyu moo fi nekk boobu alxuraan dara ñëwagu ci ba seekal yu bare bare bare bari jaar ci diggante bi alxuraan commencé wàcc ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo gisee ñu ni alxuraan mooy kaamil moo gis sax lañ ko tuddee bu dee biibul injiil saboor ñoom tawraat ak téere yëpp yi nga xam ne seen i tur rootul sax ñoo xam leen mm-hmm. ay jukki lañ ci alxuraan mm-hmm. alxuraan mu ñëw ëmbaat leen ñoom ñëpp mu sàddi xan li ma bay na yatey mi nag tawraati waaw mu ngoog mboolem mboolem téere yi alxuraan ëmb ko mm-hmm. mu nekk kon téere bu mat mm-hmm. alxuraan képp mat mais mm-hmm. ca ay jukki lañu woon rek mu mel ni maanaam suñu borom dafa dafa bëgg yéen san salam ba lépp lu jiitu woon rek te am njariñ mu dajaleel ko bu nekk ca mu dajaleel ko waaw maa ngi bëgg laa dool foofu benn question dafay faral dégg ñuy wax ni firaaw na sax nee buntu kërëm defon na fa bisimilah rahmaani rahiim. waaw moo ko musaloon. waaw boo gisee kombaam. manam hmm. bi muy gouverneur Égypte. Hmm. mandat yu yag yi mu am. ak ni mu hmm ak ni mu hmm. amé dole di kidnapper nit ñi. nek dictature. yalla alagu ko. ñaari bi la hmm benn bi moy taral wayjur ñaar mooy bismillah marim bi nekkoon ci buntu këram te moom xamul woon sax luy bismillah marim mi daf ko romb rek écriture bi benn décorateur moo ko boo doon tabaxal këram def ko sax desenneel ko ko saa yu ko rombee sax dana ko xool jàng ko waaye xamul lu doon mi ngi mel ni ñun bu ñuy wax baatu démocrate démocrate ci ñun baatu démocrate baatu grec la ñun ñu ngi koy tudd te xamuñu ko. ko. Mm-hmm. noonu la doon tuddee moom. Mm-hmm. na baatu bismillaahi rahmaani rahiim te xamul woon lan mooy bismillaahi rahmaani mm-hmm. ndax waa ji doon décorer kër gi. moo ko ci def. ci buntu kër bi. ndeket tur yàlla la. moo tax lu mu musa mën a def ci lu bon bu duggee ci këram mu mucc. gaa xare bu mu musa dem buy génn këram xool basmala bi jàng ko doog a dem bu dee mucc. neen seytaane fexe ba ni ko. waaw léegi nag bi dem moog yonte yàlla moo Moussa te seytaane bëgg ko sànq moom. te boobu la waxoon ni man maa yàlla mi gën a mag seetaane pes ko bisu keroog ne ko wax nga lépp maa la fi jiitu gën laa bon te mosuma ñemee wax loolu ko kon téema tuub baat bi ko jërta tuub nag ginnaaw rëcc na noppi ana rabakul axla <laughs> waaw ana rabakul axla iblis da koo dóor bi seex bi jeex ah, ko wax nga lépp neen waaye moom waaw loolu dañooy déggoo maa la fi yëkk mag la di la nekk sa conseil technique te wax wax bi yax ñi mu ko wax mun ko kon teema ko tuub mun ko noo jaru ko nag ndax kilifa nga waaw <laughs> ba kilifa yenn ma day yéex a wax ndax boo waxee boo ci génnaat da ngay moo tax wax waxeet xam na ni bu tuubee mu maanaam li mu bëgg ñoom du ko am mun ko jotut bàyyi bàyyi noonu rek naa ko négocier waaye ko wax keroog Iblis daa xëy xëy xëy ñëw ni ko nag man daal léegi nguur gi yàgg nga ci dëkk baa ngi dox mais boo seetloo marché yi ni mu commencé amee ci dëkk bi dafa am ñaar yoo xam ne sa personnalité ak sa dignité moom nga sauvegarder wul koy loo bëgg a wax pourtant kenn yëpp ma de mu ne ko mais des na ba tey ji xamagum ne dëgg dëgg dëgg résidence bi defoo ci palais présidence defoo ci loolu palais présidence nga war a bind mais li nga def nii ci buntu man moo ma jaaxal parce que na nga xam ne Iblis li wax ji bari bari bari bari ca assemblée ba ca Sénat ba lay dajeeg moom waaye du dugg ci biir kër gi. ci biir kër gi ndax ndax dañu bind ci biir. waaw Iblis du dugg kër musta dugg kër Firawna mhm. Mhm. day baye ba conseil de ministre jot wala Sénat wala assemblée wala fiñu dajé daje mu daje faa moom jox ko dox ko conseil mhm. su ko ngey mom mu kër mu ne ko kon kon ma dem ba suba. te Firawna musu rendre compte ci ni waji lu tax mu ngi dugg sama kër xarit bu dugg sa kër. xarit bo xam ne du dugg sa kër mukk ndax basmala bi. ba bëgg na nga so gardé sa nguur gi. wonel ni yaay président. dajji lii fi ne def ci palais président de la république loo xam ku ñu xam ne yaay buur bi loolu ne ko waa fekk dindi woo ko ndax gars yi fi ñëw xamuñu yaay président ndax kii nga def fii turam kan la mun ko kii de xaw ma ko mun ko sa tur nga ciy def bi ca sa yaay mi ngay jox lekk ak bu ñam bi tuuroo nga bañ caa joggi di koy balelu bàyyil yooyu kon da dégg ni tuur aw ñam di capp ca kaw yor kuddu di lekk muy tuuru ndekete li gën a gaaw ci seytaane yàq sa xol yàq sa yàq sa diine ci la bokk waaye ñàkk a wax basmala ci lu mu mën a doon man naa tax barke du ca wàcc mukk mosoon naa ko wax ci benn émission ni même pikir bu rate ñàkk a wax basmala dana ko def naan ndox coroxaan ñàkk a wax basmala dana ko def nelaw biddanti heure yi war a jóg doo ko jóg ñàkk a wax basmala dana ko def digéey nit mu wor la départ waxu basmala dana ko def mais lépp looy dugg ni bismillahi rahmani rahim ala kulli al doo ci am échec nee na Sëriñ Tuubaa ci tund la defoon waaw waaw kay loolu loolu la defoon noonu Firawna ci saase la woo peintrekat yi décorateur yi ne na nañ def nañ sama tur ñu daal di bind palais présidentiel de la république Firawna Firawna Iblis jëkk a dugg ci gën a tàcc ko ne ko Firawna wax na ko sax keroog waaw sa waaye loo xew tey nga añ seeg man ma ne ko kontaan yow rek <laughs> waaye mosu faaw nu ko tey damaa kontaan ci moo a dugg ci kër gi. xoolal xoolal xoolal kon basmala lu ëpp 40 ans nga yor ko nguur. Mm-hmm. ñi mu wutal ñi mu wutal dugg sa kër. bis bi mu daje ma añ mm-hmm. te wax na seytaane booy lekk ci ndab te waxoo basmala. Mm-hmm. boo yooree day yor. te moom du lekk dugub. du lekk ceeb. du lekk supp li ñu lekk du ko lekk moom ay dese lay lekk te moom lekkam du ko jàllale ci biiram day sax yàq sàqami ba mu mokk mu yàbbiwaat ci bool bi iblis waaw motax tax ku dul jaamu yalla do julli doo tudd basmala manam waxtu bo bokke mom daf def nga basmala day rey sa iblis non lay lekke motax tax suñu borom ni fa kulu mimma zikra smullahi waaw kay kulu bu ngeen namate lek tuddu len yalla turu yalla ci nabli bala ngeen ko tim bu ngeen ko defu seytaane bokku ngeen wa waaw moy mooy mooy li fi nekk hmm? kon loolu moy basmala kon manam jitu na alxuraan ci ay moy yu bari alxuraan du ko ñu mu accompagner ko and ak mom ba ci lépp lu ñuy def ci kaw suuf rek defe ko ko booy rendi gàtt booy sukk ci nat gàtt boo rendi te waxoo ko sax medd na waaw moo xam ganaar la moo xam ne nag moo xam lépp suñu xaadim kon daanaka waxtuwaa ngi bëgg bëgg bëgg a xoj mm-hmm. première partie bi xam naa ni mm-hmm. waaye am na solo lool ci leeral bi nga xam ni kon bisimilah rahmaani rahim ci alxuraan la bokk waaye jiit na fi alxuraan lu bare bare bare bëri mm-hmm. yonent yi yoroon ko suñ borom joxoon na joxoon nañ ko muy mbóotu nga xam ne day musle day aare day indi xéewal doon tur yàlla wu màgg woo xam ni njëriñ li ci nekk suñ borom subhanahu wa rek moo ko xam maa ngi jàng sax ci benn xadis bu sallallahu alayhi di wax ni mhm. kullu amrin mhm. zi baalin mhm. laa yubda'u fiihi bismillahi rahmaani rahim maxtuun waaw mu ni mbépp mbir mu am solo nga tàmbale ko te tàmbale ko bismillahi rahmaani rahim mbir du àgg doo ci am ndam wa ba ge do am barke day day day day day day ki lu mu mën a waaw. kon lu mat a xel la te fonkat ko bu baax a baax. <laughs> dégg nga li sëñ bi wax ci seigne borom joxon ko yonent yalla sulayman <laughs> mu nekkoon botam nga xam ni la bindon ci lettre ba keroog bi muy wo balkhis <laughs> ngir mu dugg ci l'islam balkhis nguur gi mu yoron way deg ñu non la reine de Saba. waye ki doole bismillahir rahmanir rahim bi ko xoolee mu am na lu mu ba dooloo ko topp ba dool ko ci. waaw waaw dugg ci di islam mujj sax nekk soxna. waaw waaw digganteem ak yonent yàlla Nuux. kazaalika. kon loolu du du du mat a bàyyi xel la te am solo lool. kon bu ko defee sëriñ bi. dañuy daal di ñëw ci ci ci ci ci maanaam maanaam. waaw bu ko defee kon dañuy daal di ñëw. ci ci ci maanaam yenn lim moo baax di di di ko di ko di ko di ko jëfandikoo dégg nga wax bi wala sax maanaam ba ñu ñëw ci ci lim boobu. Eh, manam eh, ndaw li nga xamni dañ ko dañ ko dañ ko yobbu dara serignam serign jaram sax tek ci tek ci tek ci wam ci ci foojam waw mu melni amna amna amna li ci sallallahu alaihi wasallam wax am na ngir doole bisimilah rañ gis nga saa yooyu waxe yobbo xale bu ndaw borom en âge de 607 ans ba 9 mm-hmm. ne ko sama dom ji la bëgg nga jangalal mako mm-hmm. sëñ bi jël àlluwa wala kaye bind bismillahi rahmaani rahim bismillah xam nga booy dëgg ñëw da ngay wax baa siin mimara waxtu waxee baax mbooleem lu bokk ci ko ñu bàyyi luñ mën a def ci kaw suuf ci première noxtatu boobu yàlla baal na leen baa yàlla ne ko baal naa sa baay ak seeni baay xale bi ni siin mu ne ko sa yaay ak seeni yaay baal naa leen xool lu ñu defal seeni bakka miim mu ne ko sa maam ak seeni maam lu ñu ma mën a def baal naa leen ngir sama tur wu tedd wi nga tudd moo tax borom xam fi dañuy wax ni bépp xale boo wax loowul baax mënoo koo bàyyi loo dara gis nga ko mm-hmm. bépp xale boo xam ne waxloo woo ko miim bu ko miimal dara. bépp xale boo xam ne tuddloo ko siin jot sant dara. te dëgër bopp waaw. ndeysaan ndeysaan waaw koo xam ne dañ ko alphabétisé rek ci beneen côté. Mm-hmm. waaye abba jotewuñu ko nga xam ne waxul baa siin mimara. Mm-hmm. ku waxul baa jërta mën mënu ko bàyyi loolu mu baa lu mu jàpp dana ko def. Mm-hmm. comme waxul siin bu ko sant li nga bëgg ndax du ko man fokk mu dugal ci ay tricas. comme waxul miim luñ ko jiñ ci tuuma bul ko gaaw weeti mm-hmm. ndax alxuraan mooy tax a te kooku ngay wax maandu wut mm-hmm. waxal laaj ma reet mm-hmm. ce noonu la wax ko moo tax saa yoo dalalee sa doom arafu la rek ba mu xas tudd ko benn yoon yàlla ne ne jéggal naa ay baayam jéggal na ay yaayam jéggal na ay maamum loolu alxuraan rek moo ko mën sëñ Xaadim léegi moom ñaata leesat la fukk ak juróom-ñeent boo tàmbalee ci baawu basmala ba ba ngay egg ca nuunu rahmaan di nga am 19 lettres gis nga 19 xam nga wàññi yëpp ci nuuf la yem 1 2 3 4 5 6 7 jeex na waaw fii boo commencé waatee ci 1 1 bi delluwaat ci nuuf ba ma la jox 10 xam nga aljanna mhm. carrefour yi fi jëm maanaam rond point yi fukk la ak juróom-ñeent fii ne wax na ni benn rond point bu nekk ci aljana pour nga war koo tuur jëm firdawsi hadnaan nahim salaam daaru jannatu xuldi yooyu pont bi nga yéeg wàcc boo ci wàcc fu ne di nga fekk nu bind bismillah la ilaha illallah muhammad rasulullah bismillahi rahmaani rahim daal la fukk ak juróom-ñeent. wa ma jaana ashaaba naari illa malaika wa ma jaana xiddatuhum illa fitnatan. illa fitnatan nga xam duwaañ lañ boo xam ne kenn du jàll. Mm-hmm. te con te contrôlé wuñ la. Mm-hmm. képp koo xam ne da ngay wax basmala fii. Mm-hmm. doog a faatu. wala ñu lay suul jàngal la ko. soo nee cëpp laissez-passer ngay am. waaw juróom fukki juróom-ñeent yooyu nekk ci suufu siraat. Mhm. duñ la contrôler boo wàccee. est-ce kon mën na lool jàng ko àdduna wala jàngal ko néew. mu sooyee ko foofa. Mhm. loolu moo tax fi daw bi noonu fukki junni ak ñaar yi mhm. nga xam ni bu ñuy suureeb néew ba pare di ko ñaanal la ñuy tasaare kurus yi nga xam ne bu ñu ko defee 19 sandarma yooyu ak beneen malaaka ba nekk rëdduwaan ca buntu sawara moo tax ñu di ko def ak saxi bàmmeel ak jiiti bàmmeel ak xataay ba ak munkar ak nakir nga xam ne boo defee fukki junni ak ñaar ci basmala jot nga néew bi jot mboolem ku mu fa fekk kii dund mën na kii dund mën na ko defal boppam waaw waaw moo gën xam nga dal xasun deel gi mooy adduna mm-hmm. laam gi mooy laaxira mm-hmm. xaaf bi mooy bàmmeel mooy xabru bi siim gi mooy sukuraat kon ñeenti point d'ancrage ñeenti côté yooyu maanaam fi la la basmalay xaar nga xam dañ laa convoqué tribunal nga di bari chef de quartier bi nañ ànd lay témoigné nga egg gendarme yi lay jël si woon maanaam commandant bi ne nañ ànd xam naa ni mu demee boo ne ca préfet fekk fa procureur ba avocat yi taxaw kenn ku nekk laayi la yow te waxu ko da ngay mucc moo tax boo ko dee jàng sa adduna yow bala ngaa faatu nga defal ko sa bopp moo gën bàyyi ba dee ñu defal la ko muy bismillahi rahmani rahim douze mille fois wala laa ilaha illallah malikul haqqul mubin douze mille fois wala laa ilaha illallah ci lu ci nit def doog a génn àdduna duñ la isaatoo di nga dem àjjana kon mbokk yi ñoo ñoo ñoo ko déggandoo noonu la toll daraja yi sunaam rahim waaw rek mm-hmm. euh, ñu tëj fii première partie bi insha allah rabbi man bara an huwa ma tadaba عسى رب الورى أدعوك